ci loolu aussi dañuy ñëw ci politique oustaz nan nga gisee situation euh, politique dëgg bi instant bi ñu toll nii ak fan yi ñu weesu euh, affaire yi nga xam ne moom moo fi jotoon na xew. waaw ñu ngi ci ci période boo xamante ni ci moment bu xaw difficile ci Sénégal ndax euh, ñaar rek moo fi nekk nit ki lii yoonam lii droit am jox ko ko. yow lii sa wareef ak sa ak sa droit nga jël ko te gis nañu dëkk bi mu ngi ci tension boo xamante ni ku tëdd sax nelawatuloo et pourtant xëy na mënoon na ñàkk ndax lan 2024 euh, bi ñu jëm élection yi nga dañ ci war a jëm donc amul lu leer ci bopp askan wi xëy na moo waral problème bi mais lépp su leeroon rek incha allah amaan na euh, situation yu ñuy dund nii amaana duñ ko dund mais bu ñu définiroon lépp mu leer ci ci nit ñi fi ñu jëm du am problème mais su fekkee leerul ndax lu toll naka euh, nga war a fal jiitu réew donc loolu du ay caaxaan kon lépp lu ci waay di def wala nga koy wax na nga bàyyi xel ci li ngay wax ndax fi mu toll nii lu lu lu lu yëngal réew mi dafa dafa yomb ndax nit ñi ñu ngi toog di déglu di xool fan lañ jëm kon ñi jiite réew mi li leen war mooy lépp ñu ñu teg ci yoon lépp jaar ci yoon mu leer ci boppu askan wi ñi bëgg tam maanaam jël nguur gi lépp lu ñu def tam ñu teg ci yoon su ko defee problème du am. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh, fan yee ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko. am na mm-hmm. ay oustaz yu ko seeti woon. yaa ngi woon daje boobu wala. waaw demoon nañ ci waaw. demoon ngeen ci. Mhm. donc ça veut dire que yow ci oustaz yi nga xam ne ne ñoom ñooy jàppale Ousmane Sonko si nga si nga xam nga du sax euh, du sax question jàppale xam nga boo nekk ak say ñu ànd ci loo xamante ni jàpp nga ni lii lu baax ci askan wi la lu baax ci réew mi la da nga war a jóg sol sa daal ànd ci ak ñoom te dañuy dañuy jàpp ni maanaam sëriñ wala oustaz wala jàngalekat. amul droit ci ci ci ci ci demee noonu ci lu jëm ci politique bien sûr ndax dañu am ay njaboot am am fi lu bari ci réew mi kon war na lépp lu ñuy def ñu ànd ci ak ñoom li am solo nag mooy euh, xool li gën ci askan wi maanaam bu ñu xoolee ni kat plan bi mu teg wala fi mu jëm baax na ci askan wi dañuy ànd ak moom donc ak ku mu mën ci doon. loolu moo waral li li li ñuy yaakaar ni baax na ci askan wi buñ si ay nawle wooy dañ ciy dem ànd ci ak ñoom. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh, tey buñ la laajoon. comme instant bi euh, bokkoon nga ci ñi nga xam ne ñoom ñoo seeti woon Ousmane Sonko tey ça veut dire doy na leen mën nga ñu wax rek ci ci yan euh, kii ngeen tënku ci yan critères yu ndaw rek benn wala ñaar ngeen tënku tey ba yaakaar ni Ousmane Sonko mooy ku baax ki tey bu yoree réew mi war na mën a doxal waaw xam nga xam nga nit moom da koy da nga koy seddal jikkoom li nga xam ci moom ndax yoragul réew mi mais lim ñi wan ak di ko wax nit ñi di ko dégg doy na askan wi du doy ñëpp ndax maanaam nit ki moom mënoo wax ñëpp ni waaw loolu mënta ne mais booy xool li ëpp ci ndaw ñi wala ci ci ci sénégalais yi xëy na gëm nañu politique am li ko waral nag mooy jàpp nañ ni euh, muri na suñu bët ba lu ñu jaaxaloon wala li nga xamante ni xawoon nañ ci am euh, fitna wala lu ñuy jaaxal ëllëg amaana loolu leer na ci suñu bopp ndax bu la denkee as tuut li ñu la dénk bëriwul nga fexe ba sàmm ko dara yàqu ci da ngay dañuy jàpp ni kat am yaakaar ni bu ñu ko joxee réew mi macha allah dara du yàqu wala boog li ñuy amoon yéene ci moom bëgg ko ci moom lépp dana ko matale. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh, lan ngay wax tamit ci ñi nga xam ne tout le temps dañuy wax euh, Ousmane Sonko nitu fitna la day yee fitna ndax saa yu ñu ko woowee wala saa yu ko génnee rek mm-hmm. foog mu génnee askan bi wala foog mu wax ndaw ñi génn génn leen. waaw xam nga soxna si xam nga fitna. du benn nit kese yaay yëkkati fitna. kenn du tooñ sa bopp maanaam yow sa bopp nga déedéet tey ñi nga xamante ni yàlla dénk na leen Sénégal dénk na leen réew mi euh, bu ñu defee li ñu war a def jox nit ñi seen xaq seen ay droit problème du mos a am kii ñuy woo mu dem tribunal dañ ko woo neewul dem ma donc nañ ko bàyyi mu dem répondre maanaam wuj ji ñi ko woo kon def naa loolu amul problème ak droit yi nga xamante ni am na ko ci réew mi bu bëggee defi maanaam def politique am wala li mu bëgg dox ci wàllu politique am ñu bàyyi ko mu dox ko loolu su amee rek problème du am. mais nag su fekkente ni yow la yàlla dénk réew mi nga yor pouvoir yi yëpp ni fi ma bëgg ngay jaar fi ma bëggul doo fa jaar problème day am. Hmm. waaw loolu rek xëy na mooy indi yenn yenn yenn jafe-jafe ñu koy am.